mbokk yi tey seetlu nañ ne boo jëlee téeméeri carte ñaar fukki carte rek lañ ci joxe gum juróom ñetti fukki carte yi ñu ngi ci loxo nguur gi joxe guñu ko su ñu ñëwee préfecture ñu ne ñu carte ya ña ndakaaru suñ ootee ndakaaru ñu ne ñu carte ya jógee na fa ma nga Kaolack loolu nag dañ ko war a leeral te dañu seetlu ne li ëpp ci carte yi liñ joxeegul dafa concerné xale yi ñuy door a voté ah te ku ne xale yi ñoom ñoo yanu Serigne Mboup def ko seen candidat ah la candidature de Serigne Mboup a beaucoup dérangé et aujourd'hui nit ñi ñu ngi def fexe fexe lu nekk pour que élection yi fexe ba bu ñu ko mënta sàcc wala ñu ne ko ñu fexe ba dugal ci ay galgal yoo xam ne xale yi duñ voté ji ñu leen di yëgal ne loolu du fi amee ndax waa Kaolack takku nañ pour changer de maire fal Serigne Mboup Serigne Mboup moom la Kaolacku yaa yi bëgg Serigne Mboup du candidat benn parti candidat waa Kaolack la ñoo ko tànnal seen bopp ndax li am ci dëkk bi neexatu leen loolu ku ne am na ci sañ ñuy ñaan monsieur le préfet monsieur le gouverneur ak seeni kilifa ya nekk ci kaw nañ taxaw taxawaayu njaaxaan nañ tëdd tëddaayu njaaxaan ku nekk lim yelloo na ko joxe rôlu arbitre lañ yore bu ñu nekk arbitre boo xam ne nii bu la neexee nga joué bu la neexee nga door ci bal bi nañu taxaw te tëdd taxawaayu njaaxaan li yoon wax nañ ko tëral buñ buggee jàmm am ci dëkk bi te ñun garantir nañ ne jàmm rek moo fi am ndax loolu la ñuy doxal waaye nag nelewuñu ragal luñu te amuñu ci arrière élection yi dina am ci jàmm résultat yi dinañ ko joxe Serigne Mboup gare ko lii nga xam ne nag mooy point bii lii point de départ la bu li ñu wax nii su fajuwul dinañ ñëwaat ci neneen te bu boobaa dina faju